94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem ki toppal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne lañ defal saa su nekk ci mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu te di leen siyaar voilà ku nekk xam na ne benn avion boo xam dafa def drapage drapage mooy wala dafa wàcc yoonam voilà loolu nag du ni gulet euh, mosul am Sénégal rek dafay am ci aéroport yu baree baree baree bëri am na yu gën a metti sax yi mais nag euh, euh, avion moom bu mu ci mën a doon rek bu wàccee yoonam rek def drag pass rek mën naa indi ay jéye yoo xam ne maare day taali fukki nit ak benn voilà wax nañ ne am nañ ci ay blessé ak yooyu noonu voilà euh, kon nag euh, ñoo xam ne rek euh, yooyu yëpp retard retardu avion yi rek moo ko waral voilà ndax beneen bi ci des tamit moo di xam nga avion tamit mbirum technique la wala bu nekkee ci jaww ji technique la bu nekkee dawit technique la avion daal léppam technique la voilà kon nag yaakaar naa ni yu mel nii bu amee wax dëgg yàlla duñ ne daal du euh, Sénégal rek la mos am am na ci réew yu bëree baree baree bëri ay avion yu drapage ak ay avion yi daanoo yooyu yëpp mais yàlla nañ ci yàlla mais xëy na nag euh, Sénégal moom euh, lim fi am bariwul wala bu fa mosee am xam naa ne mi ngi door a am wala bu am tamit wala commentaire yaa ngi fi waaye daal en tout cas dañuy masawoo ñi nga xam ñoo ci nekkoon ñu gaaw rek profité faj leen waaw su ko defee kenn ku ci nekk delluwaat ci say itte voilà te mu gëj fi nag wala te ñu xoolaat bu baax a baax a baax ndax mbirum avion moom. dafa nekk lu doy waar ay secret yu doy waar dafa nekk parce que xam nga loo xam ne mbirum technique la technique moom ku ko xam-xam ni ah voilà te yaakaar naa ne nag euh, euh, mbirum dérapage ci avion moom euh, réew yu bëree baree bëri lay am voilà avion boo xam dafay war a jóg décalé voilà wala avion boo xam dafa wàcc yoonam yooyu yëpp dafay am daal voilà aéroport nag voilà comme fa la <laughs> fa la avion yëpp di nekk Euh, kan lu mel nii bu amee nañu xam ne rek wala xanaa di ñaanal ñi nga xam ne rek ñoo ci jot a voilà gaañu euh, ñu delluwaat bu baax a baax dañu xool nag bu baax a baax visite technique yeeg wala ak euh, technicien yeeg yooyu ñuy xool bu baax a baax a baax avion yi voilà taata